mais loolu pour yow ndax mën nañ ko boole mën na def ay résultats yu am solo par rapport ak ak existant fi nekk. bien sûr bu ñu tegee lépp ci yoon xam nga déjà passif boobu ngay wax ñoom ñu ngi koy jéem a xam nga yaa ngi wax léegi nag ñi fi nekk du ak ñoom la ñuy defaree réew mi mais sax xam ñoo ñu nekk fi xam nañ ne dañuy dem. ñi ngi préparer seen retraite ñi ngi vider seen dossier judiciaire yi ñi ngi raxas seen i homme d'affaires ñi ngi effacer seen i amna dossier bu complet à main boo xam comme scandale 94 milliards la mel. Mhm. jeund créance jambour utiliser say relations bëgg nangu alalu jambour c'est ça. Kif, qui te même homme d'affaires bi la pointe pointé wat du doigt le la wax li dossier da fay réconforter Ousmane Sonko sur l'affaire des 94 milliards. mu jënd créance bi ci banque bi semaine bi danaa teg dossier bi ci table sénégalais xam ko xam lu tax xëy na kii am na possibilité wax ñu dégg ko mais est-ce que amul yeneen sénégalais yu dund même situation bi foog ne banque bee jaay seen alal fekk na waa joojoo jënd seen alal moom daal ruqam la toog banque yi di wër di ko jaayi créance tii gaay que am na lu mu téye ci mhm. appareil judiciaire bi <laughs> yow Vidégour du fi mu jël sa alal def ci turam est-ce ay dégg li la wax te mhm. valeur bi matut lim nangu bor bi su ma la doon jox exemple ñu ne immeuble bii la mhm. moo garanti bor bi deux premiers étages yi mat na bor bi mu ne noo immeuble bi lépp laay nangu te yi rek mënoon na koo fay mhm. premier ak deuxième fay na bor bi deux Mm-hmm. comprendre na buñ ko xaymaa mu ne non immeuble bi lay jël parce que dafa am lu maa ngi koy koyor dossier complet du début à la boobu doo ñëw ñu def si benn entièrement yow si. yaay bañ lool. waaw <laughs> boo bëggee lundi ñu def ci. entièrement nga diw diwlin de. laay wax di la jox boo bëggee sax nga teg papa Amadou Mbaye nga xool fi mu jaar. Mm-hmm. wala juriste boo xalaat fi mu mm-hmm. jaar. ndax respecté nañ droit ou pas. scandale gënu ko mag li ma lay wax nii. te am na yeneen am na yeneen am na man découvrir naa ne Macky sàll bi mu perte waaye am na ay licence yu mu joxe biñ ko gañee ba pare nga xam ne moom perte na ah. Diomaye muy président Macky signé na ay licence ressources naturelles yi bàyyi ma bàyyi noonu parce que boo soree rek waaw daay leeral la nag mhm. signé na ay licence laa la wax lii ma lay wax moom bu ko déggee xam na ko ñi mu ko jox xam na léegi nag homme d'affaires yooyu

en complicité avec benn man qui ma wax bi ma ko yëgee man politicien non non c'est un c'est un homme public qui a occupé responsabilité yu bëri fi ci état Diouf Wade ba légui il est aux affaires xam nga Sénégal dafa xat. Mhm. mi ngi dox ci ay partenaires allemands pour jaay ko. Mhm. après allemand ñeu taxaw na la ñun ñoo yor licence d'exploit cinq ans mi ngi ko yor. exploité ko ñu jox ko foncier jam ñaajo mu daggati foncier bi di jaay. loolu tam bari na fi. parce que xam nga boo nee da ngay exploité di nga créer usine. ñu jox la mm-hmm. foncier mi ngi koy morcelé di jaay. jàllu réew mii li nekk ci suuf dëgg dëgg bis bu ko régime bi tegee ci kaw man ma ragal guerre civile am ci réew mi wallaay lazim li ma lay wax du ay waxoon parce que des fois nga yëg yoo xam ne yow après. tuur rangoon rek ngay bëgg te jàpp ne loolu. un millionième la ci li am. ci li am. mais Diallo est-ce que Macky Sall na yërmande ci askan Diallo est-ce que Macky Sall bëggoon na Sénégalais yi. <coughs> Diallo est-ce que xam nga ñaata yoon la ñu lever war ko jëmale fenn ñu ne ko furaax lekk. non foog ñu auditer laa la wax de. Mhm. c'est ko furaax lekk. te du am benn suite après. non décaissement doo ko yëg. wala ñu wala benn zone wala benn benn quartier jooytu dara président président na ministre bi euh, euh, maam ki yor gafaga réew mi dekees dekeese lii mhm. ñu dekeese ko lekk ko seen biir marché yi ñu fi jox ay homme d'affaires te musuñ ko exécuté ah, immeuble boo waraa réaliser brique tegoo ko fa brique man gis naa état du la plainte en 2017 gis naa boo xamante ni 2017 gars yi dañ leen rendre ay travaux inachevés inachevé. non état du la daaw bi ma en plein conseil des ministres. Mm-hmm. Macky Sall. mu ngi interpellé. waaw mooy conseil des ministres délocalisé. mais même loolu loolu Macky Sall war na boobu kersa. Mm-hmm. conseil interministériel parce que c'est le premier responsable. Mm-hmm. nag am na lu ma ci bëggoon yokk. xam nga mbirum pain bi mi ngi am problème mu wàññi. parce que secteur bi sénégalais yi euh, nu mu tudd meunier yi sénégalais yi minorité lañ fa. ñañ ñëw téye secteur bi. Mm. français turc. turc indien sénégalais yi dooru ñëw mais bu ko doomi réew mi téye woon amaana wàññi prix du jafe mais ñi ko téye seen yoon newul ci réew mi homme d'affaires yi ñu fiy piétiner ay kilifa laa la wax d'honnêtes citoyens mhm. liggéey taxawal seen capital taxawal seeni société mhm. ay politiciens ñëw écraser leen dem jàll dafay bëri dëgg la léegi yow mhm. réeway réew développé. ak ñan ñooy développé réew mi. Mhm. say nationaux nga leen di bundaxatal dañ xoola dañ leen a écrasé. jàllo bi nguur gi bi nguuru Macky Sall gi jeexeeg léegi li sama li ma li ma li ma may ma teg ko suma bët man gëmuma ma ni ku bëgg réew mi teg bët laa la wax waxuma la man gëmu ma ni ku bëgg réew mi moo fi nekkoon. ay kayit ngay gis nii ay tuur.

te ba pare xam nga ma xam man yàgg naa wax na la raxas raxas mais raxas bi du gaaw. lu tax ay CD yi rek lañ defal gars yi. ci recrutement yi. ci recrutement yi et puis façon yi ñuy tabbee xam nga am na yenn yenn responsabilité yoo xam ni nomination la. Mhm. war nañ la mun a changer. Mhm. mais dañ ko changer de telle sorte ko yow après bu maanaam ci contrat bi duñ ci def nomination. dafay mel ni nit ki dañ ko jël. maanaam comme station boobu muy occupé ci biir boîte si leen ko si leen ko jëlee mhm. mhm. mhm. nga kooku mënoo mënoo résilier contrat ko mën a dàqe maanaam xool gestion bi gis ni kii dafa bëri Macky daa mii miin administration bi dem yoonam daa miin secteur yu bëri dem yoonam agence yeeg ministère yeeg direction dañu recruter comme nu man dama yaakaar ne bu jigi ku leen romb rek ñu ne ko kaay bëggoo liggéey xanaa moo tax maa ngi lii sax TDS tamit euh, ki ñu ko dénk muy euh, docteur Amina moom tamit commencé na résilier yenn nii nga xam te ni jàpp na ne procédure yi jaarut yoon Pape Alé Niang moom mu ngi si ligne yi. 230 lignes téléphone fan la ko RTS jëlee ak oto te xam nga lii ñu luñ koy doyee yow Diallo day toog nga bëgg woote ma la da nga bëgg woote am wooteel. Ah, man du ma fay téléphone ay chargé de mission yu kenn xamul. yu kenn xamul. Hmm. man gis naa chargé de mission boo xam xamul liy liggéeyam. Hmm. yeewu toog ci hôtel yi taxawaalu ba ngoon mu ñibbi am na salaire am na lii. bëri si. Diallo man gis naa nit ku ñu fal. ba ba muy quitté station bi mu nekkoon. poste bi mu nekkoon téeru bi lay xëy. c'est vrai. chaque jour am na moom Jean Jobaté mooy. teeru bi ngay é ji chaque jour jaaw. ba seen poste. ba seen poste de travail. da ngay ñëw ñun la noo ñëwagul place am ñu ne la. teel non mais. loolu am na loolu am na ba pare ñu ne réew mi dañoo bëggoon mu avancer quoi. fan lay avancer du contribuable. é vrai pendant ce temps là le pays était surchargé surchargé. boo duggee Saalum fii fu soriwul dara rek ay Ndramé Escale ak. gis jigéen yoo xam ne dañuy dox ba seen tànk yi xar di uti ndox mm. loolu ba léegi mi ngi am gis ñoo xam ne eau potable mënuñ ci jot waaw gis ñoo xam ne bu làmp taaxee day mel ni cinéma ci ñoom. dëgg la et fay 200 pour ñu. et pendant ce temps. si tu vois par exemple les Allemands di. Ah, fay 200 ñu chargé la gis ñoo xam ne jàllo gis ñoo xam ne jàllo bu ñu yeewoo jël xam lu ñuy teg. cere comme ne xewul gëntul. Mm-hmm.

sénégalais xaw ma nag xam ne loolu am na sénégalais boo xam njël xam lu muy lekk cere ak naajo cere bu ñu kaas ak xorom ak naajo fiimee ko mu am guu nga teg nga dagg naajo sànni xam ngeen loolu am na ci réew mi solu gën ah, moo tax bi ñuy wax naan téeméer la ñu wàññeeg mille xam leen xamoo leen leen réalité dëgg am na koo xam ne mille francs mun na yow ñetti fan du ko te Sénégalais li ëpp ci jeunesse bi dañuy yeew naan café lu tax kafe café di émerger fu nekk te ku nekk ñu lay rek mhm. da ngay naan café brûlé xaar ko añ bu la rëccee nga daw kot ko feneen te fonde bi sax wóorul réew moomu lañ nekk ay jigéen di accoucher ci kaw ay saret di génn àddina mhm. d'accord léegi ñaari question pour suñu ñaari invité pour tëj ba leen si mun a wan diiraale hmm. laas na ma dafa di provocation <coughs> yow laas na yow bokk si cabinet euh,